asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee li ñu gën a waxtaane mooy élection locale atum 2022 dañu koy door ak ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication du Sud Quotidien mu ñuy xamal ni daal jëmale ci élection yooyu ko caution bi indi na ab xaajaloo ndax ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu langue politique bi te bokkoon ci waxtaan yu mujj jaarale ko ci commission cellulaire bu dialogue politique bi daal dégg wuñu benn yoon ci limu boobule caution moo taxit fi mu toll nii daal coow li ni kuur jëmale ci loolu lee ci jamono joo xam ne nag ministre bi ñu dénk wàll biir réew mi dafa woolu ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu langue politique bi ci ñaar fukki fan ak ñett ci weeru ut bi ñu ne ngir ku ne yeggee ko ni mu ko xalaatee journaliste bi xelam ci jëm ci wàllu politique di Momar Diong ak Ababacar Fall bokk ci GRADEC te suñu naataangoo yi fare ci gi ba laaj leen seen xalaat ci mbir mi nag ku nekk daal indi na ci ab njàngat wante daal déggoon nañu ne wàllu caution bii daal moo xajamal cere suñu système ñu door ko Senghor Momar Diong mu xam le ne régime bi fi mu toll nii daal lenn moo ko soxal muy teg fi benn démocratie boo xam ne nag du ñëpp a cay bokk ña cay bokk kay mooy ñi nga xam ne am nañu alal Ababacar Fall ni caution bi sax daa mosul am moo taxit lu yees la muy fàttali ne nag caution bi daal mosul sax nag tax ba ñu wàññi yenn ci ay candidature caution bi nga xam ne nag dafa yàgg xaajale longue politique bi ñu des ci longue politique bi ak waxtaan yi nga xam ne moom la ñu sumb te Alioune Tine bi taxawal Africa Jom Center méngale koog ab lajj ci biir l'enquête nee na ci Sénégal daal démocratie lenn daal lañ ko jagleel mooy wàllu élection ki nga xam ne it day aar ak ak yelleef doomi aadama xamle ci beneen wàllu wa ni kii di président Macky Sall dafa war a fexe ba Karim wàdd ak xalifa Sall dellu si si longue politique boobule ñu dellu nag ci bi nga xam ne ginnaaw certificat de résidence yi ñuy joxe ci yenn gox-goxaat yi ak leeral yi nga xam ne Umar Ba ñu toftal ko ci kii jiite kuréel bi ëmb meeru Sénégal yi indi dénk ko Le Soleil mu sofontal ko bu baax a baax nee na daal ñiy wax loolu le ci mairie rek lañ bëgg a dal lenn daal wóor na ko mooy bu ñu bañee li nga xam ne mooy jëlee ay électeurs ci bërëb yóbbu leen ci beneen bërëb di transfert d'électeurs dañoo war a gën a dëgëral saytu bi ak càmbar gi balaa ñuy jox waxtaan bu baax a baax ak de croix ñu duppee ko sax nag faaf Javel de croix moom mu di député teg ci jiite FRN dal bu baax a baax ci nguur gi waxtaane na it wàllu fraude bi nga xam ne moom la ñuy ruumadaat ci liggéey ñuy amal ci liste électorale yi nee na daal fraude bi ñuy wax sax mënul jëmmal li xew ci dëgg-dëgg waxtaane na it diggam ak Karim Meïssa Wade dellu siwaat ci li nga xam ne mooy yóot Sonko ñu des ak Ousmane Sonko boobule jëmale ci élection yi ñu jëm Sonko bi nga xam ne daal dafa xamle ne mëbétam mooy fexe ba kujje gi nekk benn say ginnaaw gi nga xam ne nag fexe na bu lii tolloog fukki parti ak mouvement politique ak ñeent daal ñëw seey ci biir partim boobule di Pastef ki ñi koy yéegee di Vox Populi mu dellu si nag ci cérémonie bi nga xam ne ci la parti yooyu ak mouvement ñëw seeyal seen parti ci biir parti bi di Pastef te Ousmane Sonko jiite ko mu ñëw nag gën a dëgëral taxawaayam Ousmane sonk daal ak na fi mu toll nii bu ñu sukkandikoo ci 24 heures mu jox ko kàddu mu ni dana yokk suñu taxawaay ci biir langue politique bi Ousmane Sonko daal mi ngi daas fanaanal a mandat muy xamle ne parti ak mouvement politique yi nga xam ne ñoo ñëw fekk ci Ousmane Sonko bu moyee RND bu jàll Diop ak yoonu askan wi bu Madièye Mbodj ña ca des nag siiwuñu bu baax ci longue politique bi ñu des ak Ousmane Sonko ak Direct News bii samp ab laaj ndax Ousmane Sonko dafa soppi doxalin ci jàkkaarloo mag mag ki Sall ndax daal kàddu yu dëgër yi nga xam ne moom la doon yëkkati daal dakaa soppi li ko ñor daal muy fexe ba ku jégi def benn say ñu jugee ci langue politique bi waxtaanee tolluwaay mbas mi démb ci àjjuma fukki fan ak ñett ci weeru août ak Sud Quotidien mu ñuy xamal ne fukki doomi aadama ak juróom benn nañ ci seen bakkan juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeenti malade yu yees ñu siiwal ne amee nañu doomu jàngoro bi juróom benn fukki malaat ak ñett ñoo sonn lool ne ci Sowetaas loolu yóbbee ñu ñu waxtaanee ak les échos ci mbirub Papa Samba Mboup bi nga xam ne daal weddi na ma Marius Sagna dikk artu ne dana ko yóbbu fu mbaxane doonee benn Papa Samba Mboup di leeral ni dafa dem li ca France ngir def bilan médical am foofu sax nag la amee doomu jàngoro bi wante fi mu toll nii pénk ñu jàll ci libération bi ñuy waxtaane mbir bu doy waar bi nga xam ne moo am ci Kaolack dafa daal am benn xale boo xam ne dafa réeroon mbër ay mbokkam maanaam daal dañ ko yóbbu par force ña nga ko fekk ca mbuur l'enquête bi nag bu ñu sukkandikoo ci libération li mu wane daal mooy yëfu fayantu la Le Soleil di waxtaanee wàllu kër bi ñu duppee Ousmane Sow nga xam ne daal lu am solo la jëmale ci wàllu caada rawatina ci wàllu yett tàggat yaram dañ ciy waxtaanee Edouard Mendy bi nga xam ne soxal na sat la ko Quotidien di Sport ak Record sat bi xam ne daal Edouard Mendy dafa nar a jëlaat raw gàddu bi loolu it la Record Senghor gis ni jëmale ci kan moo gën a aak ci gardien de but yi ci atum 2020 jàpp 2021 daal Mendy moo ci ëpp chance Courtois ak Ederson wàllu lomb dañu koy door ak sunu lomb bi jox kàddu gi Zallo mu ñuy gën a xamaleeg Mbaye Guèye mu dellu si ci ndinkaane yi mu doon amal ak ñëw bi nga xam ne moom la zàlloo ñëw foofu la ca Fass zàlloo ne li ko wóor ba wóor mooy ndim si yàlla mbay Guèye bu amoon ay milliards ci moom moomu la la koy def ñu des ci génnub àdduna mbay Guèye ak kàddu yi nga xam ne moom la ci Tyson yëkkati ci biir suñu lomb mu ne Mbaye Guèye daal mu monument la ñu jeexale kook les arènes ginnaaw gi nga xam ne dañoo dàq seen combat Boy Niang rëg-rëg Siteu ak Tapha Tine Ambroise ne li gën ci ñoom daal mooy ñu tàggatu ñaar wala ñetti yoon ay bés bu ne lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay yi ñu xëya ndool ñu yendoog jàmm Bonjour. Les locales de janvier 2022, c'est le sujet qui intéresse la presse du jour. Élections locales de janvier 2022, quand La caution divise. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Point. N'ayant fait l'objet d'un accord entre acteurs politiques engagés dans les dernières concertations politiques au sein de la commission cellulaire du dialogue politique, le montant de la caution pour les prochaines élections municipales et départementales cristallise aujourd'hui le débat. Alors que le ministre de l'Intérieur a convoqué une rencontre le 23 août prochain pour recueillir l'avis des différents acteurs, le journaliste et politique Momar Jong et Ababacar Fall du CRADEC, interpellés sur ce sujet par le quotidien du groupe Sud Communication, livrent leur diagnostic de ce qu'ils appellent tous, je cite, une tare du système politique. Pour le premier cité, en l'occurrence Momar Jong, le pouvoir en place veut travailler à instaurer une démocratie censitaire où seuls ceux qui ont de l'argent peuvent participer. Pour l'autre interlocuteur du confrère de l'avenue Bourguiba, Ababacar Fall, la caution n'a jamais existé, donc c'est une nouveauté. Cette caution, selon lui, n'a jamais été un filtre efficace pour empêcher les candidatures. Cette caution qui d'ailleurs a toujours divisé la classe politique. Le dialogue a échoué, intime conviction de Alioune fondateur de Africa Jom Center. Il confie à l'enquête qu'au Sénégal, on a une vision extrêmement étriquée de la démocratie qui se résume aux élections. Le droit de l'homiste estime que le chef de l'État devrait faire en sorte que Karim et Khalifa Sall reviennent. Retour sur la polémique sur la délivrance des certificats de résidence avec les éclaircissements du vice-président de l'Association des maires du Sénégal, Oumar Ba. dans les colonnes du Soleil. Pour lui, c'est un faux débat et un mauvais procès qui est fait au maire. Il est convaincu que pour éviter le transfert d'électeurs, il faut renforcer les mesures de vérification et de contrôle avant toute délivrance de certificats de résidence. Avec la révision des listes électorales, critique entrevoit les prémices de violence locale si les partis bandent les muscles en amont des local avec les accusations de fraude sur les listes d'inscription des électeurs. La vérité qui va sortir des urnes aura peu de chances d'être accepté par des adversaires qui ne s'accordent aucun crédit. D'ailleurs, Critique informe que suite aux dysfonctionnements qui seraient notés auprès de la commission de révision et d'inscription sur les listes au centre socioculturel de Derklé, la police arrête le processus. Le maire de la commune, Cheikh Gueye, accuse le camp du directeur général du port autonome de Dakar, Aboubacar Sadir Bey, l'observateur, titre sur la javel de Croix. L'honorable député et coordonnateur du FRN, Mamoudou Diop de Croix, décolore le régime et parle de fraude sur la révision électorale. Sur ce point, il se veut clair. Le terme fraude ne rend pas suffisamment compte de ce qui se passe. Il évoque également avec le confrère ses relations avec Karim et relève l'épée de sur la tête de Sonko. Justement, en direction des élections à venir, Ousmane Sonko annonce une grande coalition de l'opposition après avoir phagocyté 13 petits poussés, informe Vox Populi. Lors de la cérémonie officielle de fusion avec 14 partis et mouvements politiques, Ousmane Sonko se renforce et affirme sa dimension africaine avant la grande mobilisation de l'opposition. À travers cette fusion, Pastef sort le grand jeu, écrit 24 heures. Aujourd'hui, nous avons un pas de la composition va peser sur l'échiquier. J'ai cité Ousmane Sonko. Sonko, qui affiche ses armes, souligne le mandat qui précise que parmi ces 14 partis et mouvements politiques, à l'exception de la RND de Diallo Diop et Yonou Askanui de Madjei Mbouch, les autres sont des nains politiques. Restons avec Ousmane Sonko avec Direct News qui s'interroge. Sonko a-t-il changé de fusil d'épaule lui qui est l'épreuve de la massification. Le discours guerrier du patriote en chef semble laisser place à une volonté de mutualisation des forces de l'opposition. Quittons la sphère politique pour nous intéresser au bilan du vendredi 13 août de la COVID-19 avec 16 décès, 63 cas graves et 549 nouvelles contaminations signalées selon Sud Quotidien. Justement, évacuation supposée par Macky Sall pour cause de COVID-19, Pape Samba Mboup et menace de traduire Guy Marie justice. Je suis venu en France pour faire mon bilan médical. C'est ici que j'ai chopé le virus, mais actuellement, je suis guéri, précise Pape dans Les Échos, alors que Libération s'intéresse à un enfant enlevé à Kaolack puis retrouvé Hambourg. Une rocambolesque affaire de kidnapping. L'enquête révèle une sombre affaire de vengeance. au moment où le soleil s'intéresse à la maison Ousmane Sow et nous guide au cœur du temple du géant de la sculpture. En sport, Sat le quotidien du sport de même que Record s'intéresse à Edouard Mendy vers un nouveau sacre de meilleur gardien de la saison. Pour record, Mendy est favori devant Courtois et Ederson. Parlons de lutte à présent et démarrons par Sunulombe. Zalo raconte Mbeigei à travers ses conseils, son franc-parler et sa venue à face. Zalo est convaincu que si le défunt Mbeigei avait des milliards, il les aurait investis sur lui et revient sur leur complicité. Parlons toujours du décès du premier tir de face avec Sunu Lamb qui donne la parole à Tyson. Mbaye Guèye était un monument. Terminons par les arènes avec les combats renvoyés de Boy Niang, Reug-Reug, Siteu et Tapha Tine. Ambroise Sarr deux à trois séances par semaine. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.